asalaamaaleykum wa rahmatullahi. mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi. taala wa barakaatuhu. taala wa barakaatuhu. Serigne Touba. Serigne Touba. Serigne Mountakha. Cheikh Mouhamadul Mountakha. yal na fi yàgg lool te wér. yal na fi yàgg lool te gën a wér. Serigne Touba. Serigne Touba. Serigne Mountakha. Serigne Mountakha. yal na fi yàgg lool te wér. yal na fi yàgg lool te gën a wér. Touba. Serigne Touba. Serigne Mountakha. Serigne Mountakha. yàlla na fi yàgg lool te wér. yàlla na fi yàgg lool te gën a wér. te lépp lu doonoon mébéti maamam. te lépp loo xam ne nekkoon na mébéti maamam. ak way juram yi ko fi jiitu. ak way juram yi ko fi jiitu. ak magam yi. ak magam yi. lépp mu ko. lépp yàlla na ko àggale. ci sagoom ci sagoom. université bii nag moo ci raw. université bii mu naal nag moo ci raw. jàngukaay bi jàngukaay bi. yàlla na jël caabi jël caabi ji. ubbi ubbi ko. ba daloo ko. ba daloo ko. ba teg ca nag leneen lu bari. ba teg ca leneen lu baree baree bari. sëriñ bi. sëriñ bi. sëriñ aboo nee na. sëriñ aboo nee na. mi ngi yeesalaat seenug taalibe. mi ngi yeesalaat ak taalibeem. di yeesalaat seenug laxasaay. di yeesalaat seenug laxasaay. di jébbalewaat seen bopp. di jébbalewaat seen bopp. di la sant cant goo xam ne. di la sant cant goo xam ne. am na fu mu tàmbalee. am na fu mu tàmbalee. waaye amul fu mu yem. waaye nag amul fu mu yam buñ ko mënoon. suñu ko mënoon. na maam Cheikh Anta doon sant Serigne Touba. na maam Cheikh Anta doon sant Serigne Touba. ba mu jógee ci géej gi ñëw fi. ba mu jógee ci géej gi ñëw fi. kon danañ la sant noona. kon danañ la sant noona. wala nu ko raw sax. wala nu ko raw sax. Eh, waaye nag. waaye nag. seeni xol. seeni xol. ak seen lépp. ak seen lépp. jébbalaat nañ la ko. jébbalaat nañ la ko. na maam Cheikh Anta jébbale woon boppam. na maam Cheikh Anta jébbale woon boppam. Eh, dikk gii nga dikk Daaru Salaam. dikk gii nga dikk Daaru Salaam. mooy li ma waxoon keroog rek. dag noo beral loxo rek. mooy lam waxoon keroog dag ñoo beral loxo. ndax li fi xew lépp. ndax li fi xew lépp. Eh, teraanga ji yëpp yaa ko def. teraanga ji yaa ko def. màggal giit màggal giit sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na teraanga ji yëpp yaa def teraanga ji yëpp yaako ko def sag màggala sag màggala eh, yaa moom yaa moom ci anam yëpp ci anam yëpp waaye nag waaye nag jëf ji jëf ji yi doyoon na sëkk waaye nga yëkkati sab tànk. waaye nag nga yëkkati sab tànk. ak coono yu bari yi. ak coono yu bari yi. ñëw fii. ñëw fii. noo ngi koy jégalu bu baax nee na ñu ngi koy jégalu bu baax a baax. sëriñ Abo Mouhamed nee na mi ngi koy jégalu. sëriñ Abo Mouhamed nee na mi ngi koy jégalu. te di la ci bu baax a baax la sant nag bu baax a baax a baax. cant goo xam ne yemut fenn. cant goo xam ne yemut fenn. moog bokkam yi fi nekk. moog bokkam yi fi nekk. ak bokki taalibe yëpp. ak taalibe yëpp. noo ngi yeesalaat sunu taalibe. noo ngi yeesalaat sunu taalibe. di ñaan bu baax a baax. di ñaan bu baax a baax Mbacke Bal nga gën fee te gën a wér. foo def saa rek doy na sëkk. nee na foo def seen saa doy na sëkk. sëriñ Mouhamadul Mountakha nee na mbégte mii mënuñoo am mu ko gën a mu ko ëpp. jataay bi itam ko bu baax a na jataay bi itam yëg na ko bu baax a baax a baax. nee na yitte ji nga xam ne moom la sëriñ Abo feeñal. xam na ne Pastef bu wér moo ko lal. ak yéene ju rafet. nee na loolu day yëg nañ ko bu baax a baax a baax. nee na xolam gën naa sedd. am xelam gën naa dal. yaakaaram gën naa dolli ko. li ne ci xol bi nee na li ne ci ab xolam akum xelam mënu ko wax sax ci aw làmmiñam. cant sant naa cant gu rëy goo xam ne sant na ko ci yittey sëriñ aboo ji ci jataay bi. li jëlee bari na li ñu fi jëlee bari na lool. te nee na lépp njariñam la. ci nee na li ci mujj. feeñal ci gën a di a def seere ci yeesal gu ma yeesal waxtu wu nekk sama jaayante. nee na mi ngi ñuy def seere ci yeesal goo xam ne waxtu wu ne da koy gën a yeesal ak jaayanteem ci sëriñ Touba. seere na it maa ngi gën a feddali sama sama laxasaay. di leen seereel it ne mi ngi gën a feddaliwaat ak laxasaayam. fas yéene ko bokk yëpp bokki ànd ak bokk yëpp ak bokki taalibe yi. amul nee na amul benn benn xememteef. budul nekkal Serigne Touba. budul nekkal Serigne rek. sax ci liggéeyal di sax dakk nag ci di liggéeyal Serigne tubaa ànd ko mboolem mbokk yi ànd ko nag ak mboolem mbokk yëpp. ak mboolem mbokki taalibe yi. loolu rek mooy sama yéene. nee na loolu rek mooy yéeneem. mooy yitteem. amul beneen xalaat. amul beneen beneen bëgg-bëgg. amut it beneen xememteef. loo xam ne moom ak cant rek la. xanaa nag loo xam ne ak cant rek la. mënu ko wax ci te mënu koo wax ci aw làmmiñam. loolu moo di. loolu moo di. soññe bu nga xam ne. bu rëy bii nga xam ne. ñi mu bokkal bi. ñi mu bokkal sëriñ bi. ñëpp ñi nga ko ciy soññi. loolu ak cantam. mënu koo wax ci aw làmmiñam. nee na da koy seereel sunu borom mi ñu booleeg sëriñ bi. seere ko sëriñ bi muy sunu lépp tey ak ëllëg. ngeen xam ne daal sant na gërëm na. xolam sedd na xelam dal na. yaakaar yaakaar di rek. sama yaakaar dolli ko na ba àgg. nee na fépp foo xam ne yaakaar dana fa àgg yaakaaram dolli ko na ba àgg fa. sababu yitte ji nag. ci sababus nag yitte ji nga xam ne. lu ca nekkoon lu ca desoon rek. lu ca desoon rek. jotaay bii moo ko mottali. jotaay bii moo mottali loola. jërë ngeen jëf. للنبي بسارا وساورا dal mag bi yàllaaw xalaat li kula san bit xaat ataytu bi lisaat bi sub riyaaya waab yàllaaw xalaat li kula san bit xaat ataytu bi lisaat bi sub riyaaya xabaar yàllaaw تعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فخمس ألتي فلا كسب ريايا وأبح الله لغوت أزمان اللج يا ملو أموره